ah parce que euh, di décider lii décider lële yow nga ne teg nga magistrat magistrat décider dara nga ne doo ko appliqué médecin décider na certificat médical amul viol nga ne doo ko appliqué euh, capitaine gendarmerie def na enquête ne dossier bi warul jàll procureur euh, nga jàllal ko te foo dem bon j'avais compris quand même entre kii cour suprême yi cour constitutionnelle yi bon commencé woon nañu ko avertir ne ko xam ne ay magistrat la ñu am nañu un certain dignité mënuñ fi toog di la defal mm. bu ñu demee ba ñu ne il doit remettre sur la liste on le remet sur la liste on doit lui donner sa liste on lui donne sa liste il a payé on l'a reçu il y a pas de reçu. CDC. Mm. léegi euh, léegi xoolal ñu leen di manipuler xoolal kaw Barthélemy bi on l'accuse d'avoir tué quelqu'un euh, on le condamne euh, de prison et vingt cinq millions seulement. Mm. kii wax rek ne kii am na xaalis bu ñu la joxoon pour nga dugal ci agriculture. deux cent millions bu ñu facturé de deux cent millions. de dommages et intérêts non mais kooku Sénégal tey kan moo dul tooñ kenn ci affaire muy àgg foofu. kii dañ ko <laughs> dañ ko junjat ni ko demal ba ci buuba fokk ñu ak gis ngeen bi ñu xamee ne la liste la la contumace n'avait plus lieu wala man nu ma leen des woon mooy joker. xam ngeen joker booy joué carte normalement benn carte booy denc. booy denc en cas bi ñu xamee ne. pour bu yeneen yàqoo contumace yu baaxul sama doom bi moo génn ne nañu réactiver dossier bi. te dossier bi fast euh, fast fast bi ñuy def sa doom bay ban Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ni ah. ñu ko defee fast track bi ñaati dossier euh, dossier juridique ñoo nekk hmm. fii dans les tribunaux di xaar depuis des années ba yenn réer <laughs> ay am na bureau doyen des juges yoo xam ne nee nañu dossier sax dafa réer avec la date limite le deadline des élections dañu def tout pour génne condamnation wu euh, même terrorisme sax boo moytulee fekkee cour constitutionnelle rajouté na moteur boobu sax la ñuy génne na bus bi taalul bus bi. oui ndax liñ ko jàppee jugé ko ci ba <laughs> loolu nag mooy en instruction dans mooy euh, kii nar a jiwat Sénégal nañu dimbale ba mu qu'il existe une différence entre kiy jàpp ak kiy tëj. Hmm. mais ki lay jàpp bu fekkee moo lay tëj. le maître des poursuites <laughs> on parle des juges des libertés beaucoup là là mm. bon mm. je ne veux pas prendre une copie-collée mm. de l'Europe mais am na il doit y un intermédiaire mm. entre Jérôme bi may tooñ euh, ma saaga ko moom doole jàpp ma tëjal ma mm. tëj ma en attendant que le juge wala Jérôme bi may xëccool ci wàllu politique mu singale ma am possibilité wu ah, ah, jàppee ah, ma nu ko neexee yow nga ma accusé mais yow waruma tëj yow yow ci bopp yow ci bopp mais policier bu la naree jàpp dugal la ci prison ne la demal euh, en foofu ma ñëw pendant ma ñëw te bu la neex temps bu ko neex lay ñëw dégg naa am na ñu ñu fàtte prison yoo xam ne mooy waral grève de la faim la fa def. yàgg na na ko fa gën a yàgg. Jurbel sax na ñu fi pour démb génn. oui les longues détentions moom c'est c'est réalité quel que soit nañu dimbale ci loi boobu. un policier bu ma saaga euh, mën na ma jàpp le temps vingt quatre heures peut-être mais mënuma ne damal toogi fële deux mois euh, en attendant juge bi ñëw hmm. tu vois. te mm. tamit Sénégal tamit am na ñoo xam ne boo leen jàppee te ñu am kër am yëpp. métti mm. <laughs> parce que boo tëjee nit. am normalement c'est pour compenser. Mm-hmm. Euh, la faute que tu as faite. Mm-hmm. toj naa appareil yu Jérôme. le problème c'est de rembourser Jérôme. Mm-hmm. mais ma nekk prison est-ce tax ma gën ko gaaw a rembourser wala déet. au contraire bu ñu ma sax ma continue liggéey. naa ko mën fay foofu mm. biti peut-être dina mën a récolter deux cent millions plus facilement. Mm. mais boo ko jëlee tëj ko nga bëgg mu fay euh, sama doom bàyyi deux cent millions. deux cent koy li nu mu koy liggéey. deux am na ko taxaw pour fay non non pour te dire rek ma. xam la oui mais logiquement ah, logiquement. c'est un ancien inspecteur qui est dans l'étude qui fait des kii. des contrats mirabolants j'espère euh, pour Sonko kan moo ko joxeel dépense kër <laughs> la ko docteur est-ce que nekkoo di ko joxeel yow. <laughs> d'accord yaa ngi doon heureusement a une institution. qui hmm. continue à marcher defe naa hmm. bureau ko. Hmm. il avait un bureau d'études xam o bureau ah, de. ah espérons espérons. mais euh, wala mu nekk kenn mais boo ko tëjee pendant six mois la te liggéeyu. léegi mën naa la wax ne ma liggéeyu mënuma fay 200 millions yi. alors que boo ko bàyyiwoon këram kii am na kër loolu la américain def ñoom dañ lay wax caution ngay keroog mhm. kii dañ ko nar a condamné mais bu joxee 500 millions na dem toog këram. Mm, keroog contrainte par corps bi cour suprême cassé na ko. ça au moins c' une bonne chose peut être. Mm-hmm. Ah, est une bonne chose. Ah. parce que tey su ma meññaa su toogee. j' ai dit peut être na dem récupérer këram. pas de bonne tant que le dossier est en justice tant que dugguñ ci biir géej génnewaat dossier bi yëgalaat ko ci kaw ah <laughs> mais dossier bu ñu sànni si biir géej tey dañuy tampa tampal rek mais dossier baa ngi bokk nga ci ñu gëmoon docteur excuse-moi Feuz ne Ousmane Sonko dafay bokk wax nga ma personnellement itam ne bu bokkoon moom ngay voteel tey sa candidature mun nañ laisser tomber à l'eau bokk Ousmane Sonko moom vraiment c'est peu probable pour ne pas dire impossible alors est-ce que tey peut-être gis nga jomaay candidat wala yow yaa ngi continuer ba tey di gëm projet PASTEF et que Ousmane Sonko keneen ku mu fi teg mun na ci génn wala yow c'était pas le projet. c'était Sonko c'est le projet. ah c'est le projet. démb la kenn génnee sama clinique koo xam ne waa Kër Sonko ñoo ko fayal. Hmm. d' accord <laughs> comprendre la kon yow projet bi nga gëm. projet baa ngi daw. projet Pastef ils sont en train de refaire tout ñi ñu tëj ñu ngi leen di jox dépense ñi nekk prison ñu ngi leen di jox ñuy liggéey ñuy faju ñu ngi leen di faj. Hmm. docteur docteur Kagnon li ñu doon li ñu doon tuumalee Pastef nga bokk est yow docteur. ndax li nga fi joxe information bëri de. bokkoon naa ci Macky man bokkoon naa ci ah ah, m'a lu la fa jëlee. non évolution. c'est évolution de la politique. quand Macky te dit qu'il va faire euh, cinq ans et qu'il commence à faire sept ci nga ko bàyyi kon yow da ngay politique laqatu woo. tout Sénégalais. Euh, ñëppay politique. ah un médecin c'est un c'est un homme public. Mm-hmm. il fait partie de la gestion de la cité. Mmh. gérer la politique c'est quoi c'est gérer une cité non. l'art de gérer la cité. l'art de ah. Ah, un médecin qui voit dix mille personnes euh, par an wala par mois. <laughs> <laughs> c'est pas la même politique mais yow nooy defee politique kon ba tax ngay ànd ak président Macky Sall euh, dem ànd ak Ousmane Sonko politique bi Wade euh, commencé jaxase dëkk benn day trois laaj troisième mandat. Macky ñëw ñu ñëpp yaakaar ko comme tey ni ñu yaakaaree Macky ni ñu yaakaaree euh, Sonko noonu la yaakaar woon Macky. Hmm. Hmm? Hmm. ñu jël sunu moyens yëpp def ko à service. le jugement de Ablaye Diop bi ñu bi ñu rey ba jabaram mujjee am ay indemnité kooku man maa def autopsie bi man maa jël corps bi fu ma dem ñu ne jox leen ma réquisition ñu bañ guddi boobu nelawuñu on a fait le tour de tout le Sénégal pour trouver un policier bu war a def réquisition d'ailleurs c'est assez rigolo c'est Arona Sy Arona Sy récemment l'ancien commissaire léegi daal récemment mu ngi jàppale Macky mu ngi jàppale léegi euh, naa génn na temps yi mm. il a fait il est sorti dans les médias vous êtes pas rendu compte mm-hmm. Mm-hmm. alors que c'était l'équivalent de euh, c'était l'équivalent de Fall. li Fall doon def léegi général Fall di def léegi. Harouna mm. Sy boobu moo ko doon def euh, pour Wade. Ah. en 2011 yóbbu kii ba ñëpp nekk la terreur du Sénégal. d'ailleurs am na bavure yu bëri yoo xam ne moom lañ si. Euh, moom lañ si tuddoon quand je vois qu'il euh, qu'il la reconverti qu'il a compris et qu'il soutient Sonko Sonko oui. d' accord d' war a jàppale Macky contre Sonko contre Macky. contre Wade contre Wade on l' a fait bi ñu a jàppale léegi Sonko contre. Macky contre Macky on le fait. maintenant nag je vous dis le projet. tey de bu de waxoon tey madame Ngom mooy représenter l' de Pastef le 24 ñu voté la man ma voté la du moins. <laughs> le 25 février 2024 bon plan B qui sont en cours. ces plan B kon dëggal nga ne à part Diomaye y' a d' bien sûr kan ak kan la. <laughs> ah <laughs> docteur Acha. kan ak kan la léegi ñu def la chroniqueur politique. am na ko ci sant si de. Habib Sy. am na ko ci sant si rek laa wax. Habib Sy waaw <laughs> d' accord Habib Sy ak kan. si bari na ñu am na sëriñ ñu sant si de moom la moom présenté wul. kan ci euh, kii non non non il a un candidat Aliou Mamadou Dia. moom dafa am na ko ci sant si. Hmm. am na ko ci sant Faye. Faye. Diomaye euh, Faye. Diomaye Faye oui Diomaye Faye. Dieye am na Dieye. Ah, en tout cas l' esprit l' esprit moom. il a été adopté même par des anciens PDS. Hmm. anciens PDS bu ñëw dawal esprit wu euh, kii bi <coughs> esprit wu ex-Pastef yi hmm. dañ la jàppale nga dimbale dëkk bi euh, la population li ñu bëgg yëg ngeen ne kam population bëgg nañu hmm. changer wala man rek maa ko yëg loolu lan la la population la bëgg nañ changement bëgg nañ changement wala bëgg nañ ah, changement loolu kay ñëpp xam nañ ko ah ñëpp xam nañ ko voilà ok loolu moo tax ma ne bu leen ma tooñ bu leen ma wax loolu <laughs> ñëpp koy wax alors docteur est-ce que yaakaar nga quand même ñu am élection yu leer yu jaar yoon ba xëy na plan B yi nga fi tudd ni ñu ñu jàll su fekkee rek changement aussi la nit ñi bëgg parce que bu fekkee loolu la euh, population bi ñu ci gën a bëri bëgg ça doit se traduire euh, ci vote bi bu ñu voté ba pare ñu ñu yëg ko l'état policier qu'on a hmm. ay jeunes yu doon dem di def porte-à-porte fatt fepp Médina ah Médina ñu jàppaleen téye leen man est-ce

problème est-ce que amuñu moyen tey légaux ah démocratique yoo xam ne population war nañu war nañu exprimer wu ñu ne élection yi. Euh, mais mais tey docteur lan moo indi problème boobu dañ ne xam nga li ngay doon wax rek. régime bi fi nekk am na ñoo xam ne dañ cee doyal te di am xam ne ils soutiennent aussi euh, fi nekk mm. am na ñoo xam ne doyal luñ ci na ñoo ne dañ mm. li nga xam ne dañu ne waaye ñi nga xam ne doyal nañ ci ñoom su nekkee ñoom ñoo ëpp sachant que ne suñuy def pression pour ñi fi nekk jóge fi mais soo mm-hmm. defee pression ñoom dañ leen di prolonger parce que tout report su na de am mm-hmm. ki ñi fi nekk dañ fi toogaat encore un an ou deux ans mm. ah lan lañ mën a def. pas forcément report le processus est déjà engagé. am euh, nañ fixé nañ date date élection yi. on est à moins d'un mois. magistrat yi euh, normalement dans dans ñaata tey la tey la tey la neuf tey la neuf. normalement dans onze jours. on doit connaître les liste candidats yi. Ah. yoo xamante ni. waaw ah. danañ tàmbale. Euh, ah. mën nañ préparer wu ngir nekk nekk candidat. donc si le processus est déjà engagé. li je dis que le le le vin est déjà tiré. qu'il soit amer ou qu'il soit aigre. il faudra le boire il en face parce que commission commission kii bi nga xam ne mooy seetu parrainage actuellement mooy liggéey. donc magistrat yi déjà def nañu seen nee nañu kii delloo leen ko ci liste yi. Mm. delloo nañ ko ci liste yi. andi nañu la carte joker de Mame Mbaye Niang nee nañu ko 6 mois deux cent millions condamnation boobu a un recours. mais élim mais liñ éliminé Ousmane n'a rien à voir ak affaire Mame Mbaye Niang. Euh, Cour suprême moo voilà boobu boobu définitif la. donc ñun Sénégalais on reconnaît que notre magistrature qui dit à notre peuple que Macky euh, Sonko mënatul présenté wu. on le reconnaît. D'accord, c'est ça ça ça on a joué le jeu bàyyi nañu mu dem. mais mais mais attendez mais attendez mais mais mais mais ba léegi mais mais euh, sànq gis naa benn communiqué boo xam ne maître Ciré Clédor Ly moo ko ah, wax. Ah. moom par rapport à ce qu'on moom il dit que Sonko reste toujours éligible. Ah, fan la ko teg. reste toujours éligible parce que. loolu bi nga xam ne moom la amee. diggante membre parce que justice dogal na. te justice bu dogalee en matière électorale. voilà ça ça doit être parce que dafa am loo xam ne code électoral la am na loo xam est-ce que l'application non non dafa immédiat. en matière électorale en matière électorale c'est la ñuy waxal. c'est ce que dit le code électoral il euh, juge au nom du peuple. cour constitutionnelle ñoo ko